ba liggéey yooyu ñu taxawoo ñu gën koo mën a sàmm gën koo mën a taxawoo ba yóbbul ko seeni boroom fa ñu ko bëggee sëriñ ba wax ne ñu yóbbu sëriñ Muntaxa boobu mi ngi koy jottali sëriñ Saa Jëmb ci loxooy sëriñ Saa Njaay Mbeng mi toog ñu yóbbu dellusiwaat ci kilifa yi toog nga xam ne ñooy jëwri ñi liggéey bii te seq liggéey bi ni mu baaxoo amee ndigalul sëriñ Touba waxtu bu sëriñ Serigne Touba waree yóbbu yónnee ci kër Cheikh Ibra muy sëriñ Mountakha bu amee lu muy wax Serigne Cheikh jëmb Serigne Bassirou mii la koy wax sëriñ Bassirou wax ko Serigne Cheikh noonee itam noonu daan demee ba léegi noonu lay demee waxtu wu ndigal li ñëwee dañ koy jottali dañ koy nangu ci bànneex ak ci pësteef ak ci yittewoo ak fas yéene koo defee ko sëriñ bi bëggee ndax noonu rek laan demee te ñoom ñu seqoon liggéey ba muy sëriñ Tuubaa ak Cheikh moo tax liggéey bi itam daaw jéeg bi ñu ko sumbee te mu deme nii mu deme te nun ñëpp nu bokk di ko dund waxtu wu am na liggéey sëriñ Tuubaa yoo xam ne ki fi sëriñ Tuubaa mi ngi koy indi kër Cheikh Ibra te luñ ci mës a andi ñu taxawee ko ba defee ko nañu ko bëggee bañ egsi ci liggéey bii bi ñu egsee ci liggéey bii di barab bii nga xam ne dañ ko dañ ko defoon baroobu foowukaay ñu daan gis ne barab bii mënta nekk lul barabu Sëriñ Tuubaa ndax barab bii mu waf mu wuuf di jàkk ji ci penk te ñu wax ne ku baax ci fi la feeñe mënta dend ak ab foowukaay barabu sëriñ Tuubaa rek la mën a dendal bu ñuy jaamoo yàlla dafa liggéeyal yonent bi dafa liggéeyal sëriñ Tuubaa loolu moo tax barab bi biñ ko toppatoo ba mu dellu ci loxoy sëriñ Tuubaa jaar ci loxoy sëriñ Muntaxaa sëriñ Muntaxaa waxtaan ak sëriñ Basiiru mii ne ko liggéey bu toll nii ci loxoy Seex Ibra rek laa ko mën a teg kon tegal moo ko ci loxoy sëriñ Seex jëmb njabootu seex yëpp la liggéeyal si Serigne Touba loolu itam daaw jéeg bañ jotee ndigal la gis nañ diir biñ fi def ak liñ fi taxawal mu yéeme lool ñu xam ne yitte ju mat sëkk pasteefu mat sëkk ju yéene ju rëy laltaay moo tax lii mënoon am booba ci diir bi mu ah bi ñu demee daaw ba war a tàmbaliwaat liggéey bi ndax ni ñu ko baaxoo defee dafa am ay liggéey yoo xam ne bu egsee faw day am yii liggéey day may yee ba yee féete masalan buñ dëgmalee koor gi ndog yi mënee su ko booleeg dara lu weesu teg togg ndog yi ba jébbale ko ba weesu koor gi noon yi rek la demee woon daaw tabaski nga topp ci nawet bi daal di ñëw bañ demee daaw ba war a tàmbal liggéey bi nag lii fi gaaroon gaar fi muy loolu ñu doon tuddee mbas te ñëpp maasé woon di ñaan mu jóge fekk jàmm bañ mën a wéyal liggéey sëriñ tubaay yi na mu war a wéyee te loolu sëriñ Muntaxa bi ñuy jub koor gi daa wax ne li fi jaaroon am nattu rek la bu fi jaaroon boo xam ne ko daan waxee rek ndaw loolu loo xam ne am fu mu koy jaar loo bu jaaree fa mu war a jaar ba noppi nag noonu dañuy dellu ci la nekkoon bi ñuy waajal koor gi sëriñ Muntaxa loolu wax dana le nattu boo fi jaaroon daaw li ndaw lu suñu borom yabaloon la waaye nan dellu ca lan nekkoon tan fas yéene leen lu ne weesu fam yamam loolu suñu borom dogol na ko ndax ndogu yii de nun ñi ko doon seere wóor nanu ne àgg na fu mësta àgg àgg na ci yaatu foo xam ne àgg ci réyaay foo xam ne yéene sëñ Muntaxa ak pasteefu jabaru Seex Ibra moo ko yóbbu foofa sëñ Muntaxa moo yéene woon lépp sëriñ bi weesu fam yamam la fi jaaroon daaw muy nuru luñ taxawal tuuti daa ne noonu na lépp jógaat weesu fam yamoon nag ñu defal ko tàmbali bi yees boo xam ne ñëpp danañ façon nag jóg ànd moom di wéy di wéy noonu la ko waxoon bi ñuy waaj koor ga loolu ku gisoon na ko ci koor gi lépp weesu na fam yamoon bi ñu weesoo koor gi sëriñ taxa waxaat ak sëriñ Bassirou mii na kon liggéey bii de xam nañ ne waxtu wi xat na ndax lépp ci noonu wala sëriñ bu ne mbay bokk na ci say métier doonte nun doon Baay Faal mbay defuñu ko métier leen def métier mooy ndigalu sëriñ bi fu nu ndigalu sëriñ bi fekk nu bàyyi lépp defi dafi ndigal la te sëñ Moustapha wax na ko léegi lin bëgg li na koy may mooy ndigal li bi bàyyi seex ñëwee jaaraati dana lu fi des ci ay xeeti ràgg wala luy nuyu jafe-jafe wala nuyu xat-xat ñàkk ci ne ci ndigal moo koy indi waaye waxtu ñu nekkee ci ndigal yooyu yëpp jeex loolu sëñ Moustapha Amar wax léegi bi bàyyi sax ñëwee jaaraat loolu moo tax sëriñ Mountakha wax ak sëriñ Basiru ñu xam ne li muy nuru nurul xat li muy nuru nuru na dem ci tool yi jot na sëriñ Mountakha wax sëriñ Basiru ne ko kon nañ indiwaat ndigal li ñu ñëw barkeelwaat ci liggéey bi kem talaayu lu ñu jamono mayee ndax ku xam ne liggéey tabax tooyal climat neexut def ci biiru taw waaye kon diggante bu fi nekk dañ xam ne taw bi moo tax lii ma nettatu ko ba boobaa lañ fi def da daal di wet watte lépp ndax sëñ Moussa Mbar ma ne ko kenn lu tey képp ne doy na sëkk ab liggéey doy na sëkk ndam dax ay ca nañ jóg ñëpp jóg rek loolu mooy li nuy may li ñu bëgg mooy jëfe gi ndigal li moo tax sëriñ Basiru wax ne kon ginnaaw nuyób sëriñ bi kàddu cant yooyu la ci bëgg a dolli xam gim xam ni ñu bànneexoon li ak fasoo gi ñu ko fasoo ak daw gi ñu jëm ci daw jëm ci ndigal li xam ne mooy defar lépp mooy maye lépp luñ ñu bëgg mooy musale ci lépp lu ñu ragal kon Serigne Bassirou nee na mi ngi leen di sant ci turu Serigne Mountakha di am mbégte lool ak bànneex lool bi mu ci barab bi fekk liggéey bi doxee ni ken taxawut kenn noppaluwut kenn ku ne la nga mën yaa ca te loolu rek mooy li am solo nga xam ne li ñu koy li ni ko déggee dañ ko dégg rek waaye Cheikh Ibra waxuñu liggéey bi rek yi jiitu yi nga xam ne àdduna sépp ci lañ gindi ko tegtaloo ci ba dem mën a fiñ mën a dem ba mel ne liggéey yëpp dafa jeex ci ko déggee mel ne dafa féete kees mel ne dafa tàmbali yeneen liggéey ñu nettalu nu ne ba ko ndaw fekkee jees ne ko ñëwul wuyu sëriñ bi ñu wax ne da doon wër tool yi waaye delluwaatu ci kër ga fa la teggee ñëw njaareem bi mu ñëwee génnaatul kooke ku xam na ne jenn yitte la muy sëriñ bi ay tool bàyyiwu ko fenn wuti dara bàyyiwu ko fenn waaye am na lépp ngir sëriñ bi itam xam na ne bi am na lépp ngir am jàpp sëriñ bi jàpp ci boroomam wutiwu dara moo tax boroom jox ko lépp seex yi it bàyyi lépp jàpp sëriñ bi moo tax lépp la am. dund sëriñ bi day gën di yokk Papa Sarr taxaw mbirum Seex Ibrahima noonu lay ànd ci gannaaw sëriñ bi di yokk Papa Sarr taxaw loolu nag lii moo ko wane kenn néewut sama ruuj ba kenn néewut sama yitte nangam bi ñu waxee ndigal la ñëpp bàyyi dépp daje fii loolu li fi mas a nekk léegu fi indi te lii mooy sàmm lépp mooy yokk lépp dafa am kilifa ko sama jëwriñ joo xam ne dama ko mas a yët mu ne ma seex ma ne ko mbàkke mu ne ma fa nga ne day fa nga nekk la fa nekk léegu fa def te boo ci saxee day yokk kon nag fii li nekk li fi def sax nañ ci dana yokk ba faaw defe naa loolu la ma sëriñ bés yoon waxoon ne ko na ci loolu ne woon ko jottali ti bàyyi seex ñu jottali ko jori ñaaki nii loolu sëriñ bés yoon naa leen ko ma waxoon dañuy jot ak cant rek soññee ak ñaan loolu rek la nee na nangu na nu ndigal li waaye liñ ciy jéggulu nag mooy kàddu yii mu ciy bëgg a teg ndax dara waruti woon a tege waaye liñ ciy teg daal mooy jéggulu liñ waroon a doon te doonuñu ko ndax danoo waroon a doon am néew wala ñu yor melokaanu néew wala ñu yor jikkoy néew nga xam ne duñu wax duñu yëngutu duñ raf xanaa way ndund yi rek ñoo xam fu nu jëm nee na way ndund yaa ngi nii na ñoom ñun ay way ndee lanu indi nañu baatum ndigal ci ñun nan ko daan indee gàttandoo nan ko nan ko daan gàttandoo mooy bànneexoo ko nangu ko ndax ndigal moom soo ko bànneexoo ca ngay mën a jariñu waaye boo ko bànneexoowul kat doo ko mën a ñàkk a def ca ab coono dong nga cay am ne lii nag moom bànneexoo nan ko am nañ ci ak cant gu wér di ñaan nag ci mag suñu borom gi tabaaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci jëwriñam ji sëriñ Touba ñaan nat ci jëwriñ sëriñ Touba ji Cheikh Ibra Fall Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Xaadimu Rasuul yal na ko fi sunu borom gën a yàggal lool tam gën a wér ba naal yim naa la liggéeyal maamam naal ko liggéeyal waajuram wa sunu borom bàyyi ko fi te ko mu ànd koo njabootu ak nun murid yëpp ba def ko na ko bëgg rek ten bañ ko àggaleel wenn naal mu àggale naalam yëpp gannaaw bu loolu jàllee ndigalul maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Cheikh Jëmbu Fall mi ngi jottali ay cantam yu wér ak i ngërëmam ci ndigal li bàyyi ko woon kër sëñ Tuubaa ñëw ci moom biñ ko joxee njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi ñëpp bànneexoo nañ ko bégg ko jàpp ko fas ko yéene jëfe ni mu ko bëggee xëyum tey mii ko ci xëy ñëw ci da ngay yaakaar ni am nañ fi ñaar fukki fan ndax mbooloo mi fi teew tey ak bi ñëwee liggéey bi ngeen ñu fekk dañuy mel ni dañ fee nekkoon lu yàgg waaye am na ñoo xam ne day bi ñu yeewoo tey jii lan fi teew si waaye mosuñu ñëfee teew ci lu dul tey waaye am na ca jëwriñ yoo xam ne nag ñoom am nañ bisu tey jii juróom-ñett fan ci liggéey bi wala mu tegal tuuti te dara waralu ko lu may gàttandu baatum ndigal bi ak waajal barab bi ngir kilifa yi buñ fi ñëwee nii ngeen def buñ ñëwee Mbàkke ñu am fu ñu leen mën a loo waaye nag bu loolu amul woon su ngeen ñëwee tey naaj wi li muy metti metti dañ ciy jéem a taxaw wala ñu dindi suñuy kaala wala ñu sumi suñuy mbubu jàppale ko ba mel ni lu doon ker ñi man fee toogloo sëriñ bi waaye ñi nga xam ne ñoo fi jiitu si woon nag ñoo waral loolee amul ñoo keral ker yi gàttandu baatum ndigal bi jàppale gan ñëpp rek kon nag saa borom ñu ngi koy ñaan ci barkeb Serigne Touba mii toog ñi fi jiitu si woon ci liggéey bi doon dalal si gan ñi wala ñu doon wut si ay kër yàlla na leen saabaram doon lee taxawu te jàppale leen ba leen bëgg a liggéeyal sëriñ bi sunu borom man loo leen ko ñu yàgg koo jëfe lool nee na ndigal li daal sëriñ bi ñu ngi lay xamal ni ci ndigalu sëriñ Cheikh Jëmb Fall ñun daal sunum nawet moy ndigal seigne touba ruuji wunde wuti wun aw jiwu bayi won ndax ñun suñu tola ngi ni te du wedden mukk te mo gëna nungu lepp kon ñun suñu nawet nungu na ñu fenn seigne bi Cheikh basirou neen ko seigne fallu bala nga jall neena ci sa biir wax ji dafa ma sa dégg ci souhay bu mu wax ni sëriñ bi dafa woote ca njaareem ba mu laajee booba fekk bët dafa sébbi mu laajte ñu ni ko ni ñi dey def nañu ba danoo dem ca tool ya daf ñu ci bari danoo mel ni danoo dem ca tool ya ndax bët dafa sébbi sëñ bi ni moo ne dey man am ceebo laa sëriñ Tuubaa am ceebo la loolu la sëñ fol wax muy Cheikh Mouhamadou Falilou Fall mu wax ni baatum ndigal ci misaalum wolof fukki ceebu ak ñaar la moo xam ne wenn du ca weddat ceebu nag du caageenuk muy taw rek mooy ànd ak am nawet ba mu jeex la nga waroon a am ci nawet ba bu dee bu nungu la ndigal li fukki nawet ak ñaar lay doon yoo xam ni dinañ koy am ci ndigal la ca du tee nag nawet bi du la raw kon nag Mbàkke ñun sunu nawete ngi nii Mbàkke muy sëñ bi rek ñun daal sëñ bi la ñuy wut moom lañ bëgg ci moom lañ jëm moom lañ fas yéene àndal liggéey bi waaye ñoo ngi ñaan mu dimbali nu nag lu mu bëgg rek nan ko man Mbàkke suñ ko di dinañ ko def jërëjëf Mbàkke murid yi nag Mbàkke ñu ngi nii ñi fi teew ak ñi fi teewul ñoo bokk jenn jàngoro suñ jàngoro jëpp mooy li sëriñ bi bëgg ca mënuñu ko loolu rek mooy sunu jàngoro waaye bu nu mënee li sëñ bi bëgg dara métteetunu kon mbàkke li sëñ bi bëgg nañu dimbali ban man ko ban man ko rek nee ñun daal dara méttiwunu lu lu ñàkk man bëggu sëriñ bi waaye buñ ko mënee dara métteetunu ñoo ngi sant bu baax ñaanalal murid yi fi teew yëpp nag ak yi fi teewul defaruk tey ak boo ëllëgee sunu borom yan na ko defal ci baatam ndigal bii mbas mii nga xam ne moo fi nekk li ci seex moom du mun taxaa wax dégg nañ ko ndaw luñ yebaloon dong la doon ko def loo ki ko fa yebaloon nag na ko woowaat fa mu ko yebale woon delloo ko fa mu jóge woon ca delloo si ci murid ay jàmm akuk wér ak xewal yu ne gàññi ak jàmm ju mën a liggéeyal sëriñ bi loolu sëñ bi moom ci moom lañ ko yaakaar waaye yaakaaruñ ko cib ci docteur yaakaaruñ ko ci gouvernement jàmm jëpp lii rek moo nu ko mën a may baatum ndigal bu bàyyi ko sëñ Touba buñ ci nekkee daal jàmm dina am wér dina am xéwal dina am lépp dina am kon nag Mbàkke ñoo ngi nii ci baatum ndigal bi na lépp am weeru koor wi nu génn li ci sëriñ Cheikh Mbacke Abdou Latif wax suñu mbokkum Baye Fall mii togg na ay ndogu ba tàyyi waaye kenn mësu gis weer wu mel nii jàll kenn mësu koo gis ci Baay Faal yi ñu toggee ko nii ñu ko toggee li ci feeñ ci ay xéwal mus feeñ ci ci jàmm kenn ku nekk boo lambee sa bopp da nga yaakaar ni xéwal yi yow dong la ko sëñ Tuubaa jox moo tax mu wooyee fa nii rëy nii mu rëy itam kon nag sant nañ ci Mbàkke ba baax waaye nag ñoo ngi koy ñaanal Mbàkke mu dimbali nu suñu yaakaar jin amul lu may moom muy maam seex Ibrahima Fall mais muy Serigne Cheikh Jëmb Fall sunu borom gën ko fay yàggal gën koo wéral ba lim naalal maamam yéen a ko liggéeyal waajuram wa mu def ko nu mu ko bëggee te ànd ko murid yëpp ñoo ngi yëglu bu baax di sant bu baax nag ndigal laa ngi ne Mbàkke fas leen ko yéene bu baax

Hallelujah, hallelujah, hallelujah. waa kañ euh, jërë ngeen jëf mbokk yi xam ngeen ni tey la bis bu njëkk si ba ñu tàmbalewaatee liggéey bi sëñ Mamour xam ngeen ni fii ñu nii ñu ngi si waxtu daanaka yeewee euh, fi mu ne nii daanaka sëkk bi mat na ndax bés bu bi gannaaw bi fi kilifa yi teewee wax li ñuy wax ba noppi seigne Mamour ngir nak liggéey bi tàmbali xam ngeen ni sëkk lañ ko tambalé muy nak yenn fondation fondement yi nga xamanteni fondation yi nga xamanteni dafa manam fiñ ko defoon dafa xóotoon lool manam mom la mbokki taalibe day sëkk fi mu ne nii bâtiment yi ñi sëkk rek nenañ ci si sëkk bi daanaka jégué na un mètre cinquante wala mu ëpp ko kon nak fi mu ne nii si la mbokk yi bàyyi faal yëpp fi mu ne nii xëy inshallah bu matul tey ëllëg danañ ko motali seigne Mamour nga xamanteni waari mom ubbiku na dégg nga Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacke mu ngi baax a baax yor kaddu ko Serigne euh, Mountakha Mbacke Bachir ba mu ñëwee li mu wax comme waar waa ngi noonu Baye Fall yi jógee nañ fépp daal di ñëw incha allah duñ fi noppi lu dul ndigal rek moom moo leen fi ba moo leen moo moo leen di moo leen di yëkkatiwaat kon sëñ Mamour di leen jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. euh, ok jërëjëf sëñ Aline Badara Ndim euh, jërëjëf mbokk yi ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew di santaa sunu borom bu baax a baax na waaye di fasaaleel nag mbooleem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak nun fii ci stade Bawoon euh, nga xamante ne bi Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko soppilu daara waaye sant ko euh, Serigne Cheikh Jëmm Fall xam ngeen ne ci at yëpp ñu ngi ci woon euh, tey nag ñu dellusiwaat ci Serigne bi joxaa ñu ndigal ngir àllarbay tey jii ñu ubbiwaat tàmbaliwaat liggéey bi boobaak léegi ci suba ñu ngi fi waaye ni nga ko waxee am sëkk lañ xëyee tey waaye tamit mbooleem dal yi nga xam ne itam fi lañ war a dal ngir waajal liggéey bu tedd bi itam xam ngeen ne boobaak léegi ñu ngi defar dal yi di sëkk li nga xamante ne mooy fondation bi moom lañ fi njëkk def muy bâtiment bi waaye ni nga ko waxee sëñ Aline Badara sëñ basim sëñ Abdou Khadir fi lay yendu daanaka nag wax na fi wax ju am solo kaddu yo xamanteni bi ci Cheikh mohamadou Mountakha la bayiko ànd Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif Baye Fall waye lépp rek li ci gëna a nak mom moy mooy bi nga xam netali nako na Serigne Soy boko netali nettali la Serigne Touba waxon ne bam xeyé mu fekk ñëpp dem tol mu na ndax am moos man am ceebu laa waaye lii day wone ne ndax fi ni nii léegi al suuf nak xam nga ne kon fi ne ñu ngi doon waajal tool yi waaye nag sant nañ sunu borom tabaraka wa taala kon bi nga xam ni Cheikh Mouhamadou muntaha moom xam na li xew moom léegi nag li des mooy di ñaan sunu borom kon mu defal ñu am ceeba moo xamante ni bii daanaka lañ doon wuti ca tool ya lu ko ëpp fuuf dañuy fekk si fii nu ànd ak Cheikh sunu kilifa yu baax yi liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim ndax ku ne xam na ne tool yi ya moom ah, waaw ku ne xam na ne tool yi ya moom rek lañ fay dabu ji ah, addiye rek daanaka moom lañ fay wuti waaye dem loolu lépp mën nañoo fekk si fii su ko defee nag ñu ànd liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye nag li ma gën a yéem nagi ndénkaan yi fi bëri nag nagi ndénkaan yi waaw nagi ndénkaan yi xam nga am na murit bu ma nuyu léegi waaw kenn ku ne fi ne ñi nga fiy gis genn wàll yëpp Mbàkke la ñuy wuyoo waaye Cheikh Rafal nee na li ma yeew ci naggi ndenkaan ci gëtt jàmbur yi su ma ko yeewoon gëtt yi raaf maam Cheikh ne sama yëkk yaa ci gëtt gaa yi bëngeelu waaye fi ne nii naggi ndenkaan yi tey bëri nañ fi torop waaye xam nañ ne lépp lu Cheikh Ibra Fall santaane cëb liggéey dañuy fexee dugal fa seen loxo parce que xam nañ ne njariñ laa ci loxol Cheikh Ibra fa taxaw maa lay fay mbaa fayu waaye li gën a yéeme mooy tey sëkk bi xoolal soxna yi xoolal mag ku nekk yanu sab siwo ngir fas baax gisoo ko ak si woo bi moom damaa yéemu ndax moom itam gis nga ngi jéem rek xam ne euh, maanaam yëf yi amut gone wun mag kenn ku ne da ngay am yéene barkeelu ci waaye am yéene itam euh, def bëggu sëñ bi ndax sëñ mën a def sunu bëgg noo ngi sant bu baax baax tey ñaan sunu borom mu dolli fee yàggal Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye yàggal fi Serigne Cheikh jëmu yàggal fi sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo ne ci sunu kanam euh, ñu ànd ak ñoom liggéey bu tedd bi waaye day xam le ne rek noo ngi ci liggéey bi incha la ñuy jotaan ndigal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha wala ba kër ñu jébbale gannaaw loolu la waxante woon ak maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina mooy loo ñu digal ñu def loo ñu tere mu ba ñu ba te doo ñuy gis dara lu ñuy tere incha allahu ñu fas yéene ko ànd ak Serigne Cheikh jëmm rek ci joxeñam bu tedd bi te mooy ñaq ak ñuqi ak joxe loolu la nga xamante ne bii moom lañ nekk fii ci stade bi Serigne Alioune Badara jërëjëf euh, sëñ Mamadou Ndaw jërëjëf euh, kon euh, mbokk yi ñu àndal yëpp di leen xamal ni képp koo xamante ni sa jëmm sori na wala mu tabde ba mënta agsi si liggéey bu rëy bi xam leen ni am na maanaam war na ñoom maanaam seen loxo war na agsi ndax na xam ngeen liggéey ciment la ak suuf ak béton te loolu nag xam ngeen ni ay koppar moom moo koy def kon nag ku mënta ñëw ngir sa jëmmit maanaam na solo ko agsi di fasaale murid yëpp di leen jox daje incha allah ëllëg wala si yeneen bés ñëwaat xool fi chantier bi toll. ngir ngeen mën a topp suñu programme yu am solo yooy daw leen abonné ci chaîne bi te bañ a fàtte activer cloche bi pour benn programme bañ leen a mën a ram Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall.